Eh, ñu bëgg waxtaan nag kii loo xam ne farata la ci ab jullit mu war koo xam muy murum koor lënkaloo ak woor weeru koor wi ñu nekk te di ko waaj a jeexal incha allah fàttali mbokki jullit yi ne murum koor ci ndigali yàlla yi ñu war a doon bokk farata la yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko farataal ci xeet wi ci ndigalul boromam eh, muy loo xam ne kon jullit bu ne war na ko bàyyi xel rawatina ci waxtu wi. muy loo xam ne njariñam mooy day laabal aji woor ci taq-taq ak xëy na manki manki yi am ci koor gi waaye di xéewal goo xam ne it aji néew doole ji la bëgg ci bisu mbégte bi nga xam ne mooy bisub ayit moom itam mu mën cee bég kon tuhra la li saaim wa tuama lil masakin kon am na solo lool jullit bi war ko bàyyi xel murum koor nag ki mu war mooy koo xam ne bisub ayit am nga loo dundee yàgg sa njaboot mu des dara kon bokkut ak asaka mi nga xam ne moom ku woomal la war murum koor nag euh, tënkuñ ko ci woomal képp koo xam ne bisub it bi am nga dépense loo xam ne doy na la ci bis bi yàgg sa ngeboot bu desee dara la ci des murum koor war na ca bu ca ña nga war a génneel ñëpp xajee nga génneel ñëpp bu ci ñëpp xajul nga génneel ñi nga mën a génneel tàmbalee sa bopp sa soxna. ñi la gën a jege noonu kon farata la ci jullit bu ne mu génnee boo xam ne am na bisub ayit lum xewloo mu des dara lam des murum koor war na ci murum koor nag ni muy toll ab saax la saa mooy ñeenti mudd mudd mooy bar ci loxo ñaari loxo ba mu fees yoo xam ne dafa digg doomu am na nag ay nattukaay sax léegi yuñ ko def yoo xam ne boroom xam-xam yi def nañ ci yitte ba bu dee ci sunu ceeb bii ñu am fii man yàlla dogal na bokk naa ñi ko am mudd ba natt ko waaye ñaari kilo ak liibar mooy tolloog saa ku ko def daal génne nga lu mat sëkk moom ñaari kilo ak liibar mooy deux cent cinquante gramme wala bokk deux mille cinq cent grammes deux mille cinq cent grammes soo ko génnee bopp bu ne moom ngay génneel sa bopp ak ñi nga xam ne ñëpp ñoom nga ko war a génneel. Euh, nit ki nag ñim war a génneel muurum koor mooy boppam ak soxnaam sa soxna moom donte woomal na yaa ko war a génneel muurum koor ndax yaa ko war a dundal ci ci yooyu la bokk naka noonu say doom bu dee doom yu góor lañ ba ba ñuy mag mën a liggéey yàlla war a génneel muurum koor sa doom ju jigéen ba ba ñuy am borom kër bañ jox leen seen borom kër yaa leen war a génneel muurum koor say wayjur sa ndey ak sa baay bu ñu amul yaa leen war a yor kon yaa war a génneel muurum koor sa baay bu amoon soxna bu aaje woon soxna yàq ko war a wutal yàq ko war a génneel mburum koor moom soxna sax kon mën nañu wax ne ñooñu mooy ñi nga xam ne war nañ leen a génne mburum koor naka noonu it koo xam ne yaa warlu ab dundam it mën nga ko génneel mburum koo warlu ab dundam ku ne it mën nga ko génneel mburum koor kon di nit ki dana ko war ak ñi ko wër muy kon ñaari kilo ak liibar ci buñ koy peese ku mën a am mudd yooyu it natt ko moo gën bari mbokk yi dem Makka ñaare dañ di ko jëndaale ngir buñ mën a mën a dundal sun uh, ndigalu yàlla lii uh, waxtu wiñ ko war a génn it nag mooy tey ji ñuy seenu weeru incha allahu taala bu yàlla dogalee weer wi feeñ bu feeñee rek mën nañ ko tàmbali génne guddi gépp ba fajar ba ba ñuy xëy njëkk ñuy dem ci jullikaayu it ba foog fi génne baax na waaye daal moytu yeex ko génne ba julli ji bi ñëw yonent bi ay salaam nee na ku ko def nekkatul murum koor ab sarax rek nga saraxe waaye murum koor mi taxoon ñu def moom nekkatu ko kon fexe ba di ko génne bala moo àgg ca waxtu wa di weesu am na sax ci borom xam-xam ñu wax ne manis na ko génne lu jiitu ñaari fan ngir yombal bu fekkee xëy day jëm ci ñu xaw a sori ak ñoo xam ne mu teel àgg ci ñoom dimbal la loolu mën naa nekk waaye daal balaa war nit ki moom jant bi so bu jant bi sowee ba weeri feeñ moom foofu la tàmbalee dëgg-dëgg kon nit ki war koo génneel boppam ak ñi mu jaboote ñooñu moo lim muy ndigal lu bàyyi koo ci yàlla jaar ci làmmañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam li gën nag nit ki génne ko aw ñam moo gën ndax génn ci xilaaf bi ci am wuute gi ci am dagan na génne ko leneen wala déet ñam it bu dee fii eh, dañuy wax ne li not ci dundu barab bi nga nekk la fii nag li fi not mooy ceeb ñëpp ci nit ñi ceeb la ñuy dundee kon buñ koy génne ñam ceeb lañ ko war a génne su ko defee ne ceeb bi nga xam ne moo ëpp ci lu nit ñi dunde nag ci ceeb boobu lañ koy génne ñaare bu ñu nekk nii eh, ceeb bi du sooy kilo juróom benn fukk ceeb bi gën a not ceeb boobu nag kon boo ko doon génne eh, kilo bu ceeb boobu ngay jël bu yàlla dogaloon na yow nga am xéewal di dunde ceeb bu gën bi sa say mbokk di dundee bi waa réew mi dunde kooku it sopp nañ sopp nañ nga génne ko ci sa dund yow waaye waru la li la war mooy li war ñëpp waaye nag ginnaaw yàlla dafa na la xéewal bokk na ci sant xéewal gi eh, la ngay lekk yow nga génne ca muurum donte bu la neexoon génne lu yées loolu li ñuy tare nag mooy safaan bi koo xam ne eh, li muy dunde daay yées li nit ñiy dunde te ak nay teg ko nga xam ne man naa am li nit ñiy dunde waaye mu dem seet na ceeb ba gën a yées ci ceeb yi di ko dunde ngir bëgg a sakkanal alalam kooku moom dañ koy wax ne ko doo sañ a génne ceeb boobu kon ci ceeb lañ ko génne boo defee nag génne ko aw ñam moo gën waaye dagan na it nag génne ko xaalis dagan na génne ko xaalis euh, donte donte ñam a gën ni ma ko waxee ndax génn ci wute gi waaye dagan na génne ko xaalis rawatina bu fekkee ne aajo jëm na ci wala ki nga koy jox loola ko gënal wala yow génne xaalis moo gën a jàpp na ci yow suba mën nañ ko génne allah allahu taala dana doy su boobaa nag dañuy xool loolu bu fekkee jàpp nañ ni kilo ceeb juróom-benn fukk la kon ñaari kilo yi téeméer ñaar fukk liibar bi di fanweer kon téeméer ak juróom fukk cinquante francs mooy doon bopp bu ne ñi nga jaboote ci ñooñu mu wax kenn ku ne nga génneel ko 750 wala nga génneel ko ñaari kilo ak liibar ci ceeb su ko defee jox ko loo loolu lépp nag li ngay génne lépp mën nga ko dajale jox ko kenn nit mën nga dajeeg benn ko aajawo jox ko mën nga ko it nag su ko defee nag ab faqiir ak miskin nañ ko jox ku ku aajawoo ci bis bi nga xam ne xam nañ ne amul lu mu jëfandikoo kooku lañ ko jox bu dee sa mbokk moo ci gën a yey ndax boobaa da nga boole ñaar da nga jokk mbokk ba noppi saraxe dëkkandoo yit ak ati boobu la yor waaye daal man nga koo génne joxe ko ci biir dëkk bi nekk lu dëkk bi sori sori ne kook fi jox baax na li ñu bañ daal mooy toxal ko lu mat dopp juróom-ñaar fukki kilomètre jëm kaw nga xam ne ku doon tukki eh, tukki day wàññi loola kenn du ko toxal lu toll moom waaye nag ci biir dëkk bi lu dëkk bi sori sori waaye ginnaaw biir dëkk bi la sañ nga koo jox koo xam ku la gën a sori yépp dagan na donte ñi gën a jege ñoo gën a yey ndax yàlla rek a tax kon te koo ko jox ci ci sa loxoom nga ko teg waaye sunu boom dara ci jot subhaanahu wa taala moo tax ñu def kon loolu mooy muurum koor ñu bàyyiloo xel mbokk yëpp ne lu ñu war a def la ñëpp jox ko yitte eh, bu ko defee nag ceeb bi ñuy génn it ñu di ko tànn ba mu am am mel ni mu war a mel nga xam ne ki nga koy jox moom jariñoo rek la ci la ci la ci def loolu bokk na ci liñ ci taamu eh, ndigal yàlla loo xam ne rek jar na fonk jar na fonk ndax ginnaaw dañuy woor te léeg ñu def ci koor gi loo xam ne mën naa wàññi tuyaaba ji yonent salaam nee na day laabal aji woor ji kon mel na ne soo ko defee li manqué woon ci koor gi lépp mat na daka noonu it yaa ngi jox xéewal euh, aji ñàkk joo xam ne bisu it day bisu mbégte euh, nga xam dañ ciy tere sax kenn du ci wane ab ñàkk aajowoo kenn da ciy ñaaw te te bañ mën a ñaaw mën a am rafet te ko dañ koy tare bis boobu dañuy bëgg kon euh, ki néewoon doole ak néew doole bu mu feeñ dañ ko dimbale bu mu am lu doy sëkk moom tam moo tax borom xam-xam yu bari gis ne xaalis ginnaaw moom la aajo yi ay léegi doonatul ak aw ñam lekk rek foofu lañ sukkandiku ba dellu ci maqaasidu shara rawatina it buñ delloo ci cosaan eh, ci njëlbéenu lislaam jamono saxaaba yi am na ci eh, ñu daan laaj asaka di laaj xiima eh, loolu saxal lu xam la kon ci buntu boobu lañ lañ jàpp ne man su na ko joxee xaalis doon te ñam a gën ndax ñam moom wuute amu ci te xaalis bi am na wuute waaye ñam wuute amu ci waaye boo yëgee ne ki nga koy jox aajo woon na xaalis bi moo ko gënal wala yow mi koy joxe joxe xaalis bu moo la gën a jub moo la gën a jàppandi su boobaa incha allahu taala yàlla mën na koo nangu daana dagan bu baax koo xam ne dangaa génn sa kër tukki fu masalan sa waa kër mën lañ la ko génneel rawatina léegi jumtuwaay jokkoo yi mën ngaa woote fàttali leen su ko defee ñu nattal la wala bu dee xaalis ñu génneel la ko mën nga koo génne fa nga nekkit nag waaye ginnaaw xëy na ñu ëpp ci njaboot gi fi lañ nekk moom woote ñu génne génne waa la moo gën a jàppandi dañ naan wax ne koo xam ne da ngaa tukki sopp nga génne ko ndax dañuy ragal sa waa kër fàtte laa génne waa leen waaye léegi si nga xam ne fàtte mën naa bañ am ndax jokkoo yomb na euh, kon kenn ku ne rek ku tukki euh, boo jegee wooteel sa kër fàttali sa njaboot ñaata la ñu war a génne xamal leen ko su ko defee su waxtu jotee ñu mën ko génne génne waa la loolu lu mën a nekk la lu ñu nangu la. ñu bàyyi xel nag ne euh, muurum koor moom kuy dund la war nit bu xasee faatu nekkatul mu kàllaf maanaam kenn toggatu ko ay jëf kon nit bu xasee faatu moom kenn du wax ne damay génneel muurum koor samay wayjur ya dawlu wala samay nangam wala samay xarit déedéet yi ñiy dund la war ku xas faatu euh, xalima jëf teggeeku na ci kawam kon dara waratu ko ci ndigal yàlla yi kon kenn kooku kenn du ko génneel muurum koor xanaa nag ku amoon bor ku amoon bor koor. borom muurum koor ko faatu mën nañ ko fay ndax day bu weesu woon te génnewu ko maanaam ki nga xam ne bisu it bi am na lu mën a joxe joxewu ko bu bis bi jàllee it mooy bu jant bi xasee soo faat na waaye nag du la wàcc du tee bor la bu nekk ci saw loos koo fay kon koo xam ne génnewul muurum ba jant bisu it jant bi soo it xam ne war naa fay kooku nag bu faatu woon moom bëgg nañ ak njabootam fayal ko muurum koor moom waaye bu fekkee nag moom daa faatu njëkk jant bi soo masalan tey tey jii ñu seen weer yi nit ku faatu woon njëkk jant bi so murum ko waratu ko ndax fekkiwu ko bi mu koy war fekki ko fi waaye koo xam ne bi jant bi soo fekk na la fi nag kooku la murum ko war kooku lañ bëgg ñu génneel ko ko naka noonu sax téere dañuy wax ne ku ku juddu woon masalan jant bi so na weer wi ñu dem ba ci biir guddi gi ginnaaw bu ñu sëlmi léegi am ku juddu kooku dañuy wax ne murum ko waru ko waru ko waaye nag sopp nañ ñu génneel ko ko ndax ñim war mooy ñi nga xam ne jamono yi ndigal li rot ñim fi fekk xëy na foofu ak wuute am na ci sax ndax jant bi sooy wala fajar waaye loolu amul solo lool li am solo daal mooy ku faatu njëkk jant bi soo muurum koor warut la kenn du la ko génneel waaye bu doon bor nag moom dañ ko war a fay kon mbokk bàyyi xel loolu ku ku mën a génne te génne woo ko bu weesoo it bu loo xam ne bis bi faat na bor la boo fay. loolu daal mbokk yi mooy lañ bëggoon a leeral mbokk yi laabirante ci fàttali ñëpp dellu nag di ndokkeel mbokk jullit yëpp di ñaanal suñu kilifa diine yi suñu boobu sàmmu leen tàmbalee ko mun Mouhamadou Mountakha ak mbooleem kilifa diine yi na ci réew mi di ñaanal mbokk yi nga xam ne yëpp ñu ngi bàyyi xel ëtt di ñaanal kilifa yi jumtuwaay tas xabaar yi di Touba TV ak mbokk yi mel na ñoom tey yittewoo diine ji di laabiire nit ñi fexe ba li leen amal njariñ ñu di ko jëli dina ko jox yàlla na fay ñu ñëpp te defal leen yiw ñu fekke ko ay at yu bëree bëri te sunu borom di ñu ñu rafet yu fekkin ànd ko te fekke ko te tal ko te luñ ci jaamu yàlla sunu borom nangul na ko ñu ngi baalu àq ñëpp di baal ñëpp àq. di leen wax ne kullu aamin wa antum bi xayr wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.